salaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu baax di leen ziara di fas yéene dugg ci jotaay bi dafay mel ne suñ mbokk mi doon taaxeelu accident yi suñu Abdul Hakim ah, ñu fas yéene waxtaane nag tey ah, Minanul Baaqil Xadim lu téere bu nit présenté ndax wàccuwaay bi nga xam ne am na ko ci yoon wi li téere bi nga xam ne ñu ëpp ci gëstukat ci yoon wi ci la ñuy dellu waxtaan na lu li ko lal weesuut rek dañuy dégg ci yenn ay gëstukat yoo xam ne dañoo taxaw ay iskaliyaat jëmee ko ci téere boobu ci mooy euh, ndax minan bii ñu yor dëgg-dëgg mooy mi naan bi nga xam ne moom la sëñ Basiru bindoon euh, bokk na ci iskaliyaat minan am na ci ponk yoo xam ne sëriñ bi euh, diggoon nañu ko ca dafay mel ne ci biir téere bi ñëw ci bu loolu amee ndax kon Mouhamad ibnu Cheikh Mouhamad yahdi ibn abbas al maliki ndax nekul ni manquement bobu ci mom la nekk wala det wala boog ndax ci sante tey bi nga xamne mo ñu ndax mo ci sante bi deug deug deug kon yoon ci yenn ci iskaaleel yi nga xamne nako leral ko abdul hakim nak di kat di kat ci bawam xam-xam amal aw gëstu gu yaatoo yaatu ci walu waw ñu fas yéene dalal inshallah allah ngir mu leeral minan ndax waaye jéem a indi ay leeral ak ci iskaliyaat euh, yooyu nga xam ne bokk yi taaxu nañ ko kon incha allah dañ koy bàyyi mu dugg ci jotaay bi bu noppee nag dana am buntu taaliq danañ ko ubbi képp koo xam ne am nga loo ci yokk ñu yokk wax solo waxtaan nag day dellu ci jëmmitéer bi ñuy waxtaanee ndax xam ngeen ne téere boo xam ne daanaka bu màbbee lu bëri bëri ci yoon day màbb ndax lu bëri bëri dañ ko cee dañ ko cee ndax lu bëri lu bëri bëri ci lay dellu ba waxtaan wi waxtaan wu am solo la ki ci gëstu it ki ciy gëstu dara luñ ko ngir ne dafa bokk ci wàkk sëñ bésu waaye day borom xam-xam amul ab gëstu it ci wàll wi waaye yoon wi jàgg ko ñëw bu baax a baax kon ñu taaxeelu incha allah bokk mi mu dugg ci liggéey bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki Kawaadirul Muridiyya ñoo ngi leen bu baax dellu di santat yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di yeesal sunu yaakaar sunu wóolu ci cheikhina ahmad al khadim di ñaan cheikh mahamadul muntaqa sunu borom yàggal ko téwér di ñaanal itam mbokki murid yëpp bokki jullit yëpp suñu borom defal leen wér defal leen it li ñu bëgg ci seen wàllu diine seen àdduna suñu borom defal leen ci ay xewal ginnaaw loolu ñoo ngi fedd liwaat bu baax ci daara ji di nawaadirul muridiya nga xam ne ay borom xam-xam ay gëstukat rek fi nekk ñoo xam ne man ca ñi ci gën a euh, tuuti alliwa ñi ci gën a gàtt alliwa laa bokk waaye nag loolu it dute it sun participation ci wàlluk euh, gëstu ak ci waluk euh génne la ñu xam euh, partagé ko ba ñëpp mën caa jariñu kon insha allahu taala ñu fasa waxtaan rek ci leeral ay leeral yoo xam ne ci minullahi alqadim la jëm insha allah leeral bi nag daañu ko tënk ndax euh, juguñ rek ngir leeral minanul baaxil qadim ci pàcc yépp ndax loolu day laaj waxtaan bu dëggut waaye nag li nga xam ne kooku ñuy wax sëriñ Moustapha Diop euh, kokki dana ko faral di wax ci minanul baaxil qadim euh, te defe na jàpp ne am na ku ko ñaareel ci wax ku ku mas a wax wax ju noonu wala ginnaawam it ku wax wax ju mel noonu yaakaaruma ne am na xanaa xanaa rek ñi nga xam ne bi ñu ko déggee def na shubha ci seeni xel ba euh, dégguñ ci ak leeral euh, tax la mu wax xamuñ nu ñu cee def xanaa loolu lu mel noonu ci am kay waaye incha allahu taala daañu ci leeral lu yaatu sëriñ Moustapha Diop dafa euh, ci waxam daal bu ma ko doon tënk rek mooy minanul baaqil qadim euh, bii nga xam ne moom lañu xam nekkul loo xam ne lépp lu ca nekk rek sëñ Basiru ko ci def waaye dafa am naar boo xam ne daf ko talxiis mel na ne nag ci lim jàpp ci waxam naar bi da ko talxiis te talxiisan mu xillan ndax am na ci biir téere bi yu ci ñëw yoo xam ne sëñ Moustapha mel na ne gëmu ko te it daf koy askanale naar bi ba sax di ko tuddee <laughs> outroha Mauritania eh, eh, ba tax gëmul ne wax jooju moomu waxi Cheikh Mamadou Bachir la waaw kon ci ni waxee ne talxiis mu xil la eh, bokk na ca yim indi te moom gëmul ne lu am la ba tax nangu koo sax askanel Cheikh Amadou Bachir bëgg koo askaneleen naar gànnaar moo ko defee yëpp incha allah eh, daañu ci ñëw eh, lim wax nag am na fu mu ko teg moo tax sama waxtaan dama koy tënk ci poñ yooyu ponk yooyu mooy fi mu teg li wax cëslaay la ci jëkk ci lim jàpp ne cëslaay la ba ci jëkk moom mooy dane naar bi moo ko waxal boppam naar bi moo bind laxasahu wa katabahu moom loolu moo loolu la jàppe cislaay la jëkk daañu ci ñëw léegi cislaayal ñaareelam mooy dafa wax ne sëñ ishaq daf ko joxoon ñetti safxa ca keer neka woon ñetti safa yi moo des ca loxol Cheikh Mouhamadul Bachir la ci minal eh, loolu la wax itam it eh, daañu ci ñëw incha allah loolu daal jàpp nañ ne ñaar yooyu daal mooy ci islaam yi gën a dëgër niñ koy déggee ci waxam ay yooni yoon ak loo xam ne it wax na ma ko man ba ca topp ay awraad yoo xam ne sëñ Bachir daf ko doon junju euh, mel ne ku ko jàpp indi te ñëwut loolu it daañu ci ñëw insha allahu taala euh, donte du loola dong sax lu mu diggee te ñëwut du loola dong rek <laughs> donte foofa la xam-xamam yam waaye du loola rek daañu ci ñëw insha allahu taala ñu ngi jégluwaat bu baax mbokk yi euh, kon sëriñ Moustapha Moustapha Diop loolu yi mu wax ne minanul baaxil qadim naar bi daf koo talxiis mu wax ne naar bi ko suñ Basiru doon copier loo oh, naar boobu daf ko talxiis ma ne ko déedéet sëriñ Moustapha loolu njuumte lu rëy la li am kay moy minanul baaxil qadim ginaaw biko cheikh mohammed al bashir binde ci fan wéri at ak lu top bind na téré bi fan wéri at ak lu top niko cheikh mohammed al Muntaxa waxe ne mi ngi ko tàmbuli bu ayda al cheikh ila jawar rabbi ci ginaaw ba fi sëñ bi jugge rek bu ayda ginnaaw ba fi sëriñ bi jógee rek ci la ko tàmbali daane ci bidaayatu sittiini yaat ci la àgg loolu boo ko xoolee daanaka la lay jox fanweeri at ak ñett wala sax lu teg tuuti bi mu àggee ci ay yooyu du ko sori jot na ko moolu jot na ko moolu mool boo xam ne eh, ku ñuy wax Moodu Kebe la ko doon mooloo ca Ndar Moodu Kebe doon ko mool ca Ndar waaye eh, bu mbind moom it mbindu machine la mool la nekkul maxtuuta ba ba ba Modou Kébé ba mu ko moolee ba noppi ba indi ko yàq ya bari lool lool lool lool waaye Cheikh Modou Bachir dara faatu ko ca ba mool ba ñëwee rek ba mu ko xoolee yàq ya bari lépp la dal di eh, gas lu suul ba mu des benn nusxa benn nusxa boobu la woo suñ di ko muraaja moom سيني ساخا دي جانغ سيني بشير دي ديك دي توب مودي كو مقابلة ينين نسخي مخطوطة دي نخمني نيو في نكون دانا نيو في مخطوطة دي إن شاء الله دي نخمي ني دوخ ننك أب دي جنتي سيني إسحاق وقت ناني موما وقت ماك سما مك سيني خادم عند موني بنتي دوخي أس دي جنتي sëñ Bachiru ne euh, lii daal lañ ko bàyyi ndax yàq yi bari na kenn mënu koo topp mool boobee noonu la féete côté nga xam ne moom kenn waxatu ko boobu moom sëñ Bachiru moo ko suulu benn nusxa boobu la ci bàyyi woon <laughs> mooy nusxa bi nga xam ne moom la moo nekkoon ci sëñ Saxraq kon euh, loolu moo ci am bi loolu amee ci la wutlu nak ko xamne ne dafa dafay rafet loxo ko xamne dana ko meuna bind bind mo xamne euh ne dana danañ ko meuna a man ko mur ci lay wërlu bañ indil ko naru gannar bo wi ñuy wax muhammad ibnu cheikh muhammad yaxzif ibnu al abbas al maliki نصبا ومذهبا لتخ ممنار بوبو منان المالكي نصبا ومذهبا دفا بوكو تي جيوك المالكية دفا أم مام جيتو دو مالك يوهم نيوم تلاني أسكنو نيوم بانقاس دي يوخ إدخ ماجك نخ إدخ ماجك بانقاس لا تي تندغة تندغة دفا أم تي بيوس أي بانقاس أي فخوص صح نيوم لنجتو دي لوبو amna ci fax bu ñu tudde idax maajëk naar boobu ci idax maajëk boobu la bok idax maajëk nag képp ku gëstu da nga xamné ne idax dañ la wax ne ñu ko won lañ ci rafet loxo ñu ko won lañ ci naqlul kutub ñu ko won lañ ci diko def sax métier ñu leen di fay incha allah daa gis leen bi ñu indee naar biñ ko indilee suñ Bachir suñ Bachir wax ak moom euh, ngir di ko fay muy bindal suñ Bachir euh, maa ngi jégalu yi maa ngi jégalu bu baax boobu moom dafa dama <laughs> xaw a ba daa gudd ba ëpp maa ko ciy jégalu bu baax maa ngi koy jégalu maa ngi jégaluwaat bu baax. Euh, kon ñu ngi tolloon ci bi suñ Basiir yi wutlu ku ko bindalaat mi naan ginnaaw ba nusxa moolu Modou Kébé ba jàlle daf doon wutaleet ku ko bindal bañ indil ko naar bi euh, taarif naa ko léegi ci idax maajeg la bokk idax maajeg banqaas la ci tëndaxa euh, bi bi bi bi naar bi ñëwee suñ daf ko doon fay am nañ ci ay firnde yu leer a leer am na ku ñu Baay Mor ku ñu xam la fii ci Daaru Minam ci jëwri ni yi fi nekkoon ci kër Cheikh Amadou Bachir ci ci mag ñaa mag a mag ci la bokk mag ña topp ci ñoom nag am na ku ci wax bàyyi mu jóg moom mi ngi fi ba tey moom mi ngi nasru bu sa Abdul Hakim moom nett li na ma ci bari jox na ma ci it ndax am na xasida gu naar bi taq risaloon mi nan ak xasida boo xam ne <laughs> ginnaaw bi sax naar boobu naar bi ñëwaat na Sénégal doon Cheikh Cheikh Abdoul Hakim Baye Mut Jóob moo ko aalaat allah waaye Baye Mut Jóob moom yi nee na ma Baye Mor kan nattale na ko ne naar bi jamono bi muy bindal sëñ Bachiru doon na wut basang muy toog euh, suñ Bachir woo ko moom Baye Mor mu di ko xoolal ca basan ya bi mu koy xoolal ba mu yàgg suñ Bachir ne ko eh, di ko xoolal ngir bëgg gu bees bëgg a gis basan gu bees ñu jeq-jeq bu metti eh, jàppoon ne ci yenn gan ñi la bokk ndax Sëñ Bachir daan am ay gani naar mu yaakaaroon ne ci yenn gan ñi eh, naar yi ci la bokk tax mu bëgg a gis gu bees suñ basir ne ko jox ko genn rek kuy bind rek ñu koy fay <laughs> loolu tamit ci eh, lañ xamee ne kon daf ko daf ko doon fay ba ca topp it suñ baaram suñ Abdou Majid suñ baara Habibu suñ baaram ko suñ Habibu mi nattal na ma ko eh, ne ku ñuy wax Baye Bass Fall ci magi suñ basir yi moo ko ko nattali kon am nañ ci loolu ñaari riwaay yuy tekkale ne daf ko doon fay bu ko jëlee nag la ko indi ci kër ci loolu yi amee daf ko indi euh, sëñ Bachiru euh, indi ko di ko di ko fay di ko bind muy bind ñu ne loolu baaxil xadim ni mu ko doon bindee it sëñ Bachiru dafay daf daan xëy jox ko jukki jox ko bu jugee jox ko euh, euh, naar bi toog ci kanamam mu raajaa ko li nga xam ne xaw naa amuk lënt ci moom sëñ Bachir leeral ko bu noppee door a dem bindi <laughs> ñi nga xam ne euh, teewe nañ ko ñu ngi fi ñu ngi fi ñu bari ñoo xam ne teewe nañ ko fekke woon nañ ko danaa ci tudd ñaar rek ku mel ne incha allah bàyyi ma Silla Diagne nga xam ne moo yor euh, bibliothèque Cheikh Mamadou Bachir euh, borom xam-xam la mu faqaf la euh, mi ngi fi mi ngi dund yàlla suñu borom guddal fanam ka ca topp mooy sëñ Xalil Sarr danaa ñëw ci kanam incha allah danaa ci ñëw sëñ Xalil Sarr mooy xalifa bay sëñ Sarr moom Cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye danaa ci ñëw da daan jukki jox ko li ñu wax mooy da daan jukki jox naar bi mu toog ci kanamam mu raajaa ko lu lënt mu leeral ko ko mu noppee door a jug dem bindi la jaañ ko ba tàyyi yi muy bind ba mu yàgg mu jug dem mu jug jël jël jël nusxa loxol suñ basiru li wan ko ko suñ basiru leeral ko ko teqantalal ko nee na sax léeg-léeg ci ay xuruf hijaay la koy leerale bu noppee mu door a jël eh, mu door a dellu àggale lam doon bind nee na fekke na ko bu ko masaan jox jukki mu toog mu raadu nee na loolu it fekke na ko eh, kon Euh, mu toog di ko muraajan ci kanam léeg lay nee mu gis mu koy gàggante di ko taqantalal ci dara loola loolu loolu loolu ñi ko teewe ñi ko teewe fi euh, kon noonu la ko daan defee euh, bu ko defee bu bindee ba noppi ñëw jox suñ Basiru suñ Basiru xool daal di koy tëj daal di jukkiwaat beneen jukki ñu defaat lañ defoon nee noonu lañ ko daan toppoo Baye Massile moom commande la nee na li ma ci fekkee moom mooy li suñ bu suñ Basiiru ma sant nekk Tuuba waaye bu suñ Basiiru daan dem da ko daan yóbbaale fu ma fu mu daan dem daf ko daan yóbbaale kon noonu yi la ko doon bindloo eh, bu ko defee noonu la ko toppoo noonu la ko toppoo noonu la ko toppee ba ci mujj téere ba ban demee ba ca mujj ga Euh, am na diggante koo xam ne Cheikh Mamadou Bachir dafa euh, yaram wi dafa xaw a naqari yaram wi dafa sutante dafa dafa xaw a tawat am diggante diggante boobu sëñ Xalil Sarr moomu ma doon junj léegi nga xam ne actuellement mooy xalifa Baye sëñ Sarr sëñ Xalil Sarr jamono boobu mooy doonoon bëkki néegu sëñ Bachir wala ci bëkki néeg gi la bokkoon bokk booba euh, naar bi bi sëñ Bachir tawatee naar bi dawul yëg si ci moom directement nga xamne euh seigne khalil sar na seigne bashir dan jox jukki bi mu jox ko nar bi mu nar bi binde ba noppi joxaat suñ xalil saar suñ xalil inda indi indi bashir euh euh seigne seigne khalil sar mo mu neena ñi ngi fi ñi ngi dund man na am sa sax li may wax man na dem ba deg ko neena leg leg nar bi indi neena mu jox seigne bashir mom seigne khalil seigne bashir xoss kii ko pilis ko ne ko boo demee ne ko ko loolu daan na ci am léeg-léeg <laughs> kon noonu la demee noonu lañ ko booba booba loolu loolu nag ci mujj téer bi la nee na tuuti lañ ca teg téer bi daal di yegg bi loolu am bi mu yeggee nag naar bi dafa bind benn kalima dafa bind benn kalima euh, boo xam ne daf ci doon taqriiral minanul baaxil qadim taqriir bi incha allah envoyé nañ ko defe naa yéen ñëpp da ngeen ko gis yéen ñëpp da ngeen ko gis ci ci ci njëlbeen daf doon wax ci minanul baaxil qadim thème bi mawduu bi mawduu minanul baaxil qadim waaw kon ma ñëw ci kalimatu naasix bi ناطق آه، بي محمد ابن الشيخ محمد يحضي بم كوبي من الباخ القديم بم يق دفا دف بن كلمة بخمنة تقريب له دخ دفتي وخ من الباخ القديم كم بن بن موضوع بي أمصر قم أمصر بي مقارنة صح ديجنتي ديجنتي أك anam bi sama sama Mouhamadou jibu Dagana binde ak anam bi Cheikh Mouhamadou Fadil bintaloo bindee loolu moom incha allah envoyé nañ ko ci groupe bi yéen ñëpp da ngeen ko liir bu soobee yàlla. ginaaw bi mu ñëw ci euh Cheikh Mouhamadou Bachir melal ko bo leen ko xolé leen gis muy wax ay muhaqqiq mudaqqiq ad-darrak al-fahama al allaama al lu lu melo yu am solo yu ne melal na ko eh, ci ci ci ci ginnaaw bi mu wax ci Samuel Bachir ginnaaw bi mu ñaanal ko ba ñaan sax nag yàlla na fi yàgg ba ne amin ya rabbal alamin daal di xam ne foofu la tëjee bi mu waxee loolu wàcc wàcc chaptre doora bi doora doora datee li nga xam ne mooy taqrisam boobu li nga xam ne mooy kalimam boobu la doon datee foofu ci suuf la bind laxasahu wa katabahu bi qalamihi rajin min rabbihi gufraan zunubihi wa sitra uyubihi muhammad ibnu cheikh mohamad yahwi ibnu al abbas nasaban wa madhaban yowma al isnain al min shawal جربنا لخصه وكتبه léegi loolu laxasahu wa katabahu juuji nag mooy problème mu sooje la kulli xaal mooy problème am te njuumte la ndax laxasahu wa katabahu bu fekkoon dafa bind minanul baaxil qadim ba ba ba minanul baaxil qadim àggee la def ca suuf ne laxasahu wa katamahu kon bu boobaa mu jamtale ne minan bu baaxil xadim lay wax waaye bu fekkee ba minan àggee defu fa dara dafa bind ab taqrisam ba mu àgg mu wàcce di date taqrisam bi bis ko bind muy bisub altine eh, asalis wal ashrin bisub bisub ñaar fukki fan ñett ñaar fukki ñaar fukkeelu fan ñett ci shawaal kon bu waxee loolu déggin doya di wu ñàkk dégg arab moo ko mën a delloo ci minanul baaxil qadim loolu moom lu lu lu mooy li wér mooy li am ndax benn katabahu wala xasahu yowmal isnaini mi ngi aju zarf la mi ngi aju ci kata kata laxasahu wa katabahu ndax bu den minalu baaxal qadim ndax nit man nako talxi ci bisu yowal isnay ben bis bisub altine ndax nit man na ci cee talxis minalu baaxal qadim lolou lu jom la man la nek ba ca topp kalim la baatub laxasa la laxasa maaruuf lu ñu xam la la laxasa day amee maana dafa bokk ci ay maanim ah إيجاز الاختصار تلخيص بوكتي أي معاني إيجاز اختصار كون بو فكي دفا دفا يوحتي من الباخ القديم دي وحتي موضوع عم. دي وحتي سيخ مهور البشير لول لب مدف كوتي نيتي باس نيتي صفحة <laughs> لولو لولو لولو لولو إيجاز لا لولو تنك لا تلخيص لا <laughs> كون لولو لجبلو تي آه، لخصه وكتبه تي kon <laughs> lii mooy ala kulli xaal li nga xam ne moo moo ci ku ko settantal waaw. soo daal bokk yi lool mooy pat bu njëkk bi ak suñu gan albahis Abdul Hakim Mbacké mu indi ay leeral yu am solo ci iskaaliya yooyu nga xam ne gëskat yooyu tënk nañ ci gën a fes di al ustaas Mouhamed Koki mu leeral baatub njuumte euh, li ko andi dalee ko ca ki nga xam ne moo njëkk euh, nasxu téere bi nasxu ma mën a tuddee tuddoon Modou Kébé ak njuumte yi ca tàpp yëpp ak taxawaay ba nga xam ne sax Mouhamadul Bachir am na ko ca ak ni mu sonnaatee ci wut koo xam ne rafet loxoom rafet na ba day jàng naaw gànnaaw boobu mu nasxul ko ko nasxul ko téere bi ci teewaayam waaye it mu waa jaaxa ko yi ci teewaayam bam noppee nag naar bi daf luñ tudde luñ tudde kalimatu naashia wax té lam ci wax ci ay kàddu yu rafet jëmalewu ci abou Mouhamadul bashir ci suufu kalimatu naashia bobu nak kalima bobu mu defoon nak ba lool mu bindon don go don go taarixal ndax liñ min way nit ki bu bindee lañ légui da koy taarixal min waxan moko momal bokk ci la defon lool nak li kat laqasahu wa katabahu na to dayma laqas laqasahu wa katabahu dafay dellu ci moom li mu bind waaye delluwut ci jëmmi téere kitaab minal baaxal xadim comme ni ko al leer leerle kon dañoo nekk loolu moo iskaal yi moo andoon leer na nañ ci koo xam ne ah, yaa ngi gëstu ci koo xam ne yaa ngi topp ma dool kon alhamdulilah kon dafay mel ne li ñu mën jàpp mooy jëmmi mi baaxal xam li ci nekk lépp Cheikh Mouhamadul Bachir moom moo ko taalif moom moo ko wax ay abam la lépp moo ci nekk ci nekk lépp mooma naar bi naqlu rek la nga ko doon defloo te lépp lu mu naqlu dañ koy waajaa ci kanamu Cheikh Mouhamadul Bachir loolu nag ënd na ci oustaz albaaxi sa Cheikh Abdoul Hakim ënd na ci ay firnde yu leer ay jëmm yoo xam ne ba tey ñu ngi dund ki ci gën a fees mooy sëñ Xalil Sarr ak jëmm yooyu nga xam ne moom moo jiite maktab maktabu Cheikh Mouhamadul Bachir bi nga xam ne moo nekk ci pénc bi kon dafay mel ne lépp lu mu wax rek teg na ko ci ay firnde ñooñu nga xam ne ñoom ay euh, shuhur yu ayaan noonu ba ñuy nas ko téere beeg yëpp fekk nañ ko ci seen kanam lan kon naar bi moom laxasahu wa katabahu jubluwu ci minan bi waaye mi ngi jublu ci loolu mu bind kon loolu leen nañ kon dafay mel ne dañu ci dañuy jàpp ci xaajum ñaareel bi ca mooy awraat yooyu nga xam ne sëñ Cheikh Mouhamadul Bachir na ko ci ak yooyu nga wax ne ba iskaliyaat yooyu nga xam ne wala boog yenn ci dige yooyu nga xam ne ñoom wax nañ ne sax Mouhamed Bachir junj na ko ci biir téere bi te mujj ko andi moom ay dalil loo xam ne mujj na ko mujj ko andi loolu lan moo ko waral ak lan mooy tontu bi kon dafay mel ne bàyyi suñ gan al oustaz Abdul Hakim Mbacké mu tijji buntu boobu incha allah. kon bisimilah. Hmm, waaw kay jërëjëf asalaamaaleykum jërëjëf sëñ Xaadim ñu ngi eh, leen di ziarewaat bu baax kon eh, boo xoolee boobu nga xam ne eh, kon laataa may ñëw ci yooyu mu jàpp ne sëñ Bachir da ko tudd da ko diggee woon wala da ko junjoon te tudd ko Euh, laata loolu euh, damay xool da xool seetan ñu seetantalaat euh, kii bi dat boobu naar bi def ci kalimaam bi loolu lépp ci lépp ci dunduk Sëñ Bachir la àgg ba gis nga dat boobu yi mu datee mbindam moom yi kalimaam boobu yi mooy mooy mooy mooy mooy ñaar fukki fan ak ñett ci shawal ci euh, mille trois cent quatre-vingt-cinq ci gàddaay xam nga shawal la bañ demee ca rabiu saani ba ca topp te mooy mille euh, trois cent quatre-vingt-six si ma lay jóg dagal moo ko datee bi sëñ Basiru génn àdduna ak sëñ Basiru sëñ euh, moo ko date fii yéebin min saani rabiay wafshasi wafshas mooy at mi topp ci quatre-vingt-cinq boobu mooy quatre-vingt-six euh, mille trois cent quatre-vingt-six ci gàddaay gi ci fukkeelu fan ak ñaar ci rabiu saani kon shawal bi lii àggee dem nañ ba ci rabiu saani yi suñ ba door fa jóge <laughs> loolu it euh, lu mat a xam la euh, ci ñi nga xam ne dañ doon jàpp ne ginnaaw suñ Bachir la wala defewu ko ci ci dundam wala defewu ko ci ci ci ci ci teewaayam waaw waaye lépp moo ko teewee lépp moo ko coordonné moo ko moo doon jikko di ko jox mooy tëj kon loolu loolu it na ko ñëpp xam euh, asalaamaaleykum euh, kon ñu ñëw dellu si ci li nga xam ne mooy awraad yi nga xam ne sëñ Basiru daf ko junju te mel ne farul ñëw loolu yi euh, damaa jàpp ne Moustapha dafa liiru téere bi bu baax waaye sax du loola dong du loola rek amaat na lu gën a fës sax diggee gu gën a leer gim diggee awraat yi diggee gu leer nañ ci leneen am na te te te sax loola ñëwut loola nag li koy waral bu ma ko leeralee defe naa de dees na ko mën a dégg la koy waral awraat yi lu sëriñ tuuba bind ba noppi la maanaam lu sëriñ tuuba luñ bind ba noppi la fi mu tàmbalee ba fa mu yem booy def sa téere ca sa mu sawwada eh, boo demee ba àgg foo xam ne daa am loo fa war a dugal te loola ñu tab yir ko ba noppi loola defe naa doo doo doo fa nekkaat di ko bind waaye danga koy bàyyil place da koy am foo xam ne fa ko jàpp dugal lu mel noonu moo am ci rexlatu euh, rexla bi ci jazaaw shakur suñ bisiir daf ko diggee daf ko diggee ne la danaa la ko indi dem ba ci kanam mu door ne la aca nag ma indil la rixla bi nag daan le haka nafsa rixlati tabarrukan biha te it dem na ba ba wax loolu ne haka nafsa rixla tabarrukan biha te te sax fa rixla bu mujjut ñëw loolu la koy waral mooy diggante tabyib ak taswib ca taswiid euh, foofa da ko faa bàyyil place ngir dugal ko fa ngir comme que rexla bi lu sëñ bi bind la mu nekk téere spécial jëlaat ko di ko euh, comme comme xataayu xataayu mu mu sawada nga jëlaat ko di di fa sar di ko bindaat téere bi yépp day xat waaye boo ko da koy bàyyil place boo demee bay mool wala ngay dem bay Euh, tabir door ko dugal loolu nag erreur bu erreur boobu moo moo am ba aw raad yooyu ak lu mel ni rex la boobu mujjuñ dugg ci biir téere bi moo tax euh, bi ma ci wax ak euh, sëñ Baara moom sëñ Xabibu nee ma bu fekkee nas rexla bi moom ndax suñ baaram suñu abi bu moom moo doon traduire minanul baaxil qadim ci wolof li ci ëpp moo ko traduire am na ci loo xam nag suñ Malick jeng mu njaareem moo ko traduire ci wolof waaye la ci ëpp moom suñ baaram moo ko traduire bi ma ciy wax ak moom nee na bañ ci àggee wax na ko Cheikh Mouhamadul Mountakha boobu suñ Moustapha Bachirou bi sax waaye suñ Mountakha la ci waxal nee na ne ko fii

ci lay door a ñëw yàlla dogal tabib ba euh, tabib ba euh, xëy na ñëw ci ñëw ca ñëwul ci tabib ba waaye ca tabib waaye waaye ca euh, ñàkk ñëwum ca mu mu ba moo juumloo ki doon taswib ba léerluwu ko wala indaale ko kon moom loolu loolu moom lu mel noonu moo ci am moo tax mu ne moom suñ baara nee na dafa waroon a ñëw te bu fekkee nas rexle moom place leer na nañ leer na nañ kon loolu moom yaakaar naa lu lu lu lu lu lu mën a dégg la ba ci sax baabul jaamiya Cheikh Omarul Bachir jàppoon naa indi buntu bu muy tuddee albaabul jaamiu jàppoon naa indi buntu bu muy tuddee albaabul jaamiu ba ba muy wax ci ci alquran am na foo xam ne dafa wax ba ne la euh, naa ci naa ci yam foofu daan ne la danaa la danaa ci in ndax ay détaayam dana ñëw ci albaabu jaami ci mujjub téere bi jàppoon na ko te baabu jaami googu it daf ko mujj bàyyi te fa ko bindoon mujj ko dindi moo ci am fa mu mujj ko mujj ko dindi fa mu ko diggee woon mujj mujj ko mujj ko dindi te daf ko mujj bàyyi li li li ko firndeel ne daf ko mujj bàyyi li koy firndeel mooy muqaddimaam xam nga muqaddima ko ne xam na ne <laughs> baraana nit def téere ba noppi doora indi muqaddima boo xam ne da ciy leeral lim tartibe bi indi muqaddimaam ginnaaw bi mu bindee téereem bay indi mu ni mu tartibi téere bi limaale wu ci albaabul jaame te am na ci biir téere bi foo xam ne tudd na ko fa <laughs> kon loolu yi <laughs> ci li li liñ koy dollil moom Moustapha loo xam ne yëru ko Euh, loolu ci la bokk incha allah. waxtaan la fi mu ne ñu ngi ci waxtaan wi. ginnaaw bi leele leen jublu ci euh, laxasaxu googu noonu ñëw ci ci ay mébét yi nga xamee ne sëñ bi da mel ne euh, amoon na ko te mujj gi ñëw ci teew bi da mel ne sax léegi kon mën nañu ko bañ a tuddee ay mébét yu ñëw teew mën nañu bàyyi mën nañu mën jàpp ne. Euh, fu mu bàyyi loon place la ngir bu teel bu egg ca euh, tabwit ko maanaam indi nusxa bi nga xam mooy nusxa bi war a génn dugal ko ca dafay mel ne ñi ko doon dugal ñoom ñoo ko fàtte loolu mënoon ko jàppee noon kon dafay ñëw ci li albaaxis Moussa Diop Koki wax ci ñetti awaax yooyu nga xam ne boo xam ne suñu Isaaxa joxoon na ko ca Égypte ci Minanul Baaxil Xadim kon suñu bisimilah ñu xam dëgg-dëgg loolu demee. asalaamaaleykum ñu ngi jégalu bu baax mbokk ci loo xam ne Moustapha dana ko faral di dëgërloo. ci ne Minanul Baaxil Xadim naar bi daf ko talxiis bokk na ca li muy ci loolu ne téere bi bañ ko ba ko sëñ Isxaaqa di muul ca keer moom fa la ko fekk nee na it ci ñi ci doon def ab liggéey ci la bokk loolu li la wax ne boobu yi bañ soxlaa loxol nusxa asliya bu sëñ Basiiru sëñ Isxaaqa nee na ñetti kayit la génne woon ne lii moo des ca loxol sëriñ Bachir la ah man de li ci njëkk a tontu rek mooy wax jooji moom nee naa ko wérut loolu moom wérut ndax boo nee eh, la sëñ Bachiru eh, bindoon ñetti kayita ca des loolu moom du wax ju wér loolu moom wax ju juunoo juunu la ndax man sax wax naa ko ne ko <laughs> la ma ci am ah, man rek li ma ci am am na am naa ci lu bari waaw donte euh, donte amuñu ndigalal tasaare ko waaye am na dana ci am loo xam ne danaa leen ko euh, incha allah waaye ngeen gisal ko seen bopp euh, loolu moom wérut man rek la ci am man na cinquante et un paas ci loxol sëñ Basiru loxol boppam te sax lu bëri la ci téere ba ndax sëñ Basiru bi mu koy bind ci kayit yu rëy rëy la ko doon bind mbirum loxoom bi ci kayit yu rëy rëy la am boo gisee original bi kayit yu rëy la euh, euh, safxa bu ne dana def ñeent fukki bayit lu ci bëri dana def ñeent fukki bayt léeg-léeg mu def ñeent fukki bayt ak ñeent léeg-léeg mu def fanweer ak juróom-ñett xam nga këyit wu rëyee noonu nga xam ne mën nga cee bind fanweeri bind ak juróom-ñett hmm? euh, euh, fanweeri sutur fanweeri ak juróom-ñett kon loola <laughs> këyit gu gu rëy la ko doon suñu bisir doon binde euh, lu lu toll noonu nag boo ci amee <laughs> lu toll juróom fukki paas ak lu topp hmm? Euh, bu doon bu doon loolu paas yu bari la boo ko doon xayma ci suñ téere yi téere yi ñuy mool léegi matbon matbon yi matbonaat yi kon euh, loolu moom wérut ñetti kayit yi moo des ca loxol suñ Bachir la loolu moom wérut <laughs> wérut moom ala kulli xaal euh, dëgg la la muy wax ne jàmbu naan ga maa ngi ko déggaat sax mu naan suñ Isaaxa confirmé na ko dëgg la jëmm naan nga am na kenn weddiwu ko kenn weddiwu ko am na lu ci am waaye lam ne dañ koo jëmm naan dañuy lépp naan loolu amut loolu moom wérut dafa am koo xam ne daa am lum ca fekkoon ca bagaas ya fexe ba jël ko ci ci laqatu euh, yor ko ba mu yàgg mu def loolu yi jambu ko nan <laughs> waaw man man man man euh, xamna mak man ma te def lolé te jàmm lolé naan xam nañ ko bu baax la kaku top it euh, ke ki ki ki ka fa fek man ke ko don jëmb nan ka ko fa fek man war na ma mom ke <laughs> ki ma ko nettali mo mo fekke jambu ga kon <laughs> am nañ ci lu leer nañ waaye nag du lépp lu bari des na ca lu bari des na ca mi ngi ci bàyyi ma si la jaañ ko bu fekkoon yitteem bu amoon yitte day day dem jëm koo gis day dem jëm koo gis ma te it te it man jox naa ko ci jox naa ko ci lu man ñetti safaxaa ci safaxaat yooyu seen bésir yooyu jox naa ko ci te bu ko muqaabala woon dana xam ne la muy wax wér dana xam ne talxiis li ñuy tuddi talxiis jege bu faa <laughs> loolu kon euh, mooy la ci am euh, kon moom loolu moom moom <laughs> day day ci ñëwaat mu gën a leer euh, ko am na loolu it warees na ko leeral bu baax warees na ko leeral bu baax loo xam ne dafa ñëw ci mi noonu bu baaxul xadiim moom mu jàpp ne iskaali jële mu jàpp ne iskaali jële ci ne sëñ Bachiru dafa wax ne taanquq boobu ak taaruf Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani mi ngi amee ci ama yasas loolu la wax wax na it ci ci ci ci ci at boobu la bind qasidak يقول أحمد الفقير جدا ak tuuba yul yu wirda euh, ala xaal <laughs> boo ñëwee foofu yi ku toll ni Cheikh Mamadou Bachir wax ay waxam nga ñëw bëgg koo weddi tax wax ji tax nga bëgg a weddi wax ji tax nga bëgg a dëgërloo ne naar ba da ko talxiis ba loola nga bëgg koo tuddee yi fi mauritanien Euh, nu ne la koy tuddee ay watroxal Mauritanie ak lu ne yàlla dogal nag ay njuumteem foofa leer nañ ba ci jëkk ab tuuba yu yul xaadir yu mu mu jàpp mu mu ne tuuba ma ne sa ko tawee tuubaay ba ci Guinée loolu loolu loolu wax ji yàq la sëxul ne sëñ bi mas naa dem tuuba ba ci Guinée loolu moom ñi jàng histoire sëñ bi amul kenn ku ko ci riwaaya ku dul maam Asou ma muy wax maam Asou nekkul spécialité ci wàllu ci wàllu googu yi ci ci ci histoire bi ba ca topp waa Touba ga ca Guinée ñoom dëgg la sëriñ bi am na ñoom ay relation waaye dem moom bokku ci njabootu ñooña man jokkoo naa ci góor goo xam ne boroom xam-xam la fóore la عبد الاحد سي عبد الله الثاني موما جوكلك موم ما جوكوك موم نيكوي واخ الحاج سيدي جابي بروم خام خام بو ماغ لا امنا جيروم نين فوكي ات اك لو توب بيندنا ييتام اي تيري سي تاريخو فامي بوبو فامي تاريخ توبا بي سي غيني اك سين فامي بيندنا سي اي تيري تيري يو خامني دكتور عبد الاحد سالمي موكو تحقيق yàlla dogal na ñoom lañu saxal mooy ne sëriñ bi musta dem Touba Guinée te ñoom ñooy famille Touba Guinée <laughs> waaw ndax Touba Guinée euh, ñu ngi ko sañ ci mille huit cent ki ko sañ ci mi ngi tudd alxaaji Salim maam As Kamara mii ñu xam ci ndar alxaaji Salim moomee lañ ko tudde maam ak kamara mi ñu xam ci ndar tey alxaaji salim mi sañ ci Tuubaa ga ci Gine mooy turandoo euh, mooy mooy mooy mooy turandoom doomi alxaaji salim mooma it moo ko yewwi fala maam as kamara fala jànge fala fala fala fala fala jànge xam-xam fala juddoo euh, te alxaaji salim mooma it lañ ko tuddee ala kulli xaal am na histoire yu yaatu ku ñuy wax euh, alaaxa bi njëkk am ci diggante waa tuubaa ga ci Guinée ak waa Touba gi maanaam waa Mbàkke famille Mbàkke alaaxa ba ci njëkk am mi ngi bàyyi ko ci ku ñuy wax Abdul Qadir Xutbu Abdul Qadir Xutbu doomi Muhammad Taslimi la Muhammad Taslimi doon doomi Alxaaji Salim moom <laughs> moom amoon naa ko àllaax ak sëñ Mor Anta Sali ndax daf doon dem gànnaar di seeti yees di seeti Seex Sidiyal Kabiir booba nag jaar na ñooro ba takk na fa soxna ba am fa doom booba nag boo xoolee date bi bi mu amee day tombeeg ah, mabba joxu bay woote mabba ba ci jamono boobu daal ala kulli xaal la jaare ñooro ci ci yoonam woowu it ci la day yegg sëñ Mor Sali ba am yu mu junj ci sëriñ bi boobu sëriñ bi tu tànk la waaye am ju am yu am yu mu junj ci moom moom Abdul Qadir Xutb moom foofu la alaaxa bi njëkk amee ginnaaw bi it am na ca am na ca waa famille booba keneen ki ñuy wax Mouhamad Taslim yi ku bokkut ak Mouhamad Taslim mu mag mi mi nga xam ne doomu El Hadj la meneen Mouhamad Taslim yi moo xam ne. moom it jamononte sëñ bi ba ba ba ba way na ko sax qasayit ba alaaqaat bi amna ba jamono sëñ mo Moussa ba jamono sëñ mo Fadil ba Cheikh mohammed al muntakha bu al hadji Sidi jabi mi may wax ñëw na seet Cheikh mohammed al muntakha kon alaqa yoyu amna waye nak ñom bind nañ ci téré ci seen famille seen seen taarix te amul kenn ku bind mukk mukk ne sëñ bi dem na foofu Touba Gatigui waaw maam As Camara nag sëriñ bi dem na fa ca Ndar te moomu ci famille boobu la bàyyi ko <laughs> ci famille boobu la bàyyi ko euh, ca Touba Gatigui ne googu la bàyyi ko euh, kon euh, kon xëy na bu fekkee am na ku sëñ bi daan dem ci ñoom kooku yi lay daal maam As Camara moom yi kon loolu it euh, wax dëgg yàlla te it bu fa demoon même bu saxoon ne dem na fa it xanaa dem fa du tax mu fay askane boppam dem ci barab rek <laughs> bëgg nekk ak tuuba bëgg bëgg dem ci barab rek askane fa sopp it wax dëgg yàlla euh, xel na ko kon tuuba moom tuuba gii rek la jamtale euh, ba ca topp moom Moustapha Diop gëstuwul xasiida ga ba am lépp gëstuwu ko ndax boo même téeréem al omda al omda bi la sëñ Bachir indi dong la indi dolliwu ci dara la sëñ Bachir indi ca xasiida ga kese la indi dolliwu ci dara ci nga xam ne kon gëstuwul xasiida gi yépp man gëstu naa ko ci lu yaatu bind naa ci eh, ay wax naa jëkk ay kilifa bind naa ci leetar ay kilifa bokk na ci rek sëriñ Moustapha Xasaayid mu ne ma xasida gi moom sëriñ bee ko def mu ne xasida gi sëriñ bee ko def moom sëriñ Moustapha Xasaayid eh, daan ne ma nag waaye am na yàq loolu la ma wax booba nag la ma jàpp ne mooy yàq ya mooy mboolem bayit ya ma yama yama yama yama foroon te ñi ci xasida ci la bokk yëpp dama ko dama ko euh, dama bay di yëpp laa ci def waaw na ma ko tartiibe nag noonu laa jàpp ne fala fala ci la yàq yaame waaye bi yàlla dogalee ma bayu may continuer di ko gëstu ba xam ne euh, am ko ne ma euh, am am gu ma junju njaasaan ci laa fàttalikoo ne ñoom am na ñu ma ci bokkaloon daara ci laa fàttalikoo ne ñoom xasaay bi sëñ bi bind mu aju ci Sëñ Abdul Xaadir Jeylaani ñoom dañ koy nemmi dañ koy am bu baax ma woote fa laaj laajte ko euh, sama benn mbokkum daara mu ne ma danaa la ko gëstul mu gëstu ko foofu ci seen kilifa ba am xasida ga loolu doyut sëñ Mbàkke Abdurahmaan ma demaat fa mom moom ndeke sëñ mbacke am burhan mom ci bopam am na qasida gi te toxalon ko bu yàgg ci bayam sëñ mbacke burhan bu yàgg la won qasida ci bindum bopam am jox na ma ko jox na ma mbindum ci qasida gi bu yàgg te mi ngi ko toxale woon ci ci bayam kon loli yit te te te bo demé ci qasida gi lépp nuskha bima jëlé jëlee ak nuskha bima jëlé jëlee mbacke burhan يونيو مولا نوتالي نياري بيت لين وتالي نقص لي خص غودلا نياري بيت مولا نوتالي باجا توب امنا يين اي بن بن بنان بات ليك ليك يو ندو ندو وا واي قصد دي نديك سيرين بي دات سيرين بي سير اندي سيرين بي سي بوب موكو دافاي مو دافاي موكو دافاي سي بي قصد دي داخ ماغي سي واخ عام 310 من بعد 1000 قلت ذا في الجهر lim naan tubaake ci Guinée it mel na ne sëñ bi moo ko sëñ bu mag bi Sëriñ Tuubaa moo ko dajjil boppam ndax moo wax ci biir xasida ga fi fi fi fi rajabil muazzamil maymuni fi watani tuuba bila taxmini kon mbindum mag wax dëgg yàlla ku ku ku sa tànk guddul waroo caa waroo caa addu ba rawatina nag mag moo xam ne dafa bind ab téere fanweeri at fanweer at ak ni ak yërëm yaatoo ku yëroon la ku ku bëri lum liir la waaye loolu lépp ànd ak mu jël benn téere def ci fanweeri at def ci fanweeri at kon ku cey wax war nga seetaat la ngay wax bu baax a baax a baax a baax a baax kon loolu te tënk la ci wàllu googu waaw maam as camara nag sëriñ bi dem na fa ca te moomu ci famille boobu la bàyyi ci famille boobu la bàyyi ko <laughs> euh, ca Tuubaa ga ci Guinée googu la bàyyi euh, kon euh, kon na bu fekkee am na ku sëñ bi daan dem ci ñoom kook yi lay doon muy maam askamar moom yi kon loolu it euh, wax dëgg yàlla tey bu fa demoon même bu saxoon ne dem na fa it xanaa dem fa du tax mu fay askane boppam dem ci barab rek <laughs> bëgg nekk ak tuuba bëgg fa dem ci barab rek askane fa sopp it wax dëgg yàlla euh, xel nangu ko kon tuuba moom tuuba gii rek la jamtale euh, ba ca topp moom Moustapha Diop gëstuwul xasiida ga ba am lépp gëstuwu ko ndax boo même téeréem al omda euh, al omda bi euh, la sëñ Bachir indi dong la indi dolliwu ci dara la sëñ Bachir indi ca xasiida ga kese la indi dolliwu ci dara ci nga xam ne kon gëstuwul xasiida gi yépp man gëstu naa ko ci lu yaatu bind naa ci eh, ay wax naa jëkk ay kilifa bind naa ci leetar ay kilifa bokk na ci rek sëriñ Moustapha Xasaayid mu ne ma a gi moom sëriñ bee ko def mu ne xasida gi sëriñ bee ko def moom sëriñ Moustapha Xasaayid eh, daan ma nag waaye am na yàq loolu la ma wax booba nag la ma jàpp ne mooy yàq ya mooy mboolem bayit ya ma yama yama yama yama foroon te ñu ci xas ci la bokk yépp dama ko dama ko euh, dama bay di yépp laa ci def waaw na ma ko tartiibe nag noonu laa jàpp ne fala fala ci la yàq yaame waaye bi yàlla dogalee ma bayiwu may continuer di ko gëstu ba xam ne euh, am ko ne ma euh, am am gu ma junj njaasaan ci laa fàttalikoo ne ñoom am na ñu ma ci bokkaloon daara ci laa fàttalikoo ne ñoom xasaay bi sëñ bi bind mu aju ci sëñ Abdul Xaadir Jeylaani ñoom dañ koy nemmi ko dañ koy am bu baax ma woote fa laaj laajte ko sama benn mbokkum daara mu ne ma danaa la ko gëstul mu gëstu ko foofu ci seen kilifa ba am xasida ga loolu doyut sëñ Mbàkke Abdurahmaan ma demaat fa mom ndeke ci Mbàkke Abdu burhan mom ci bopam am na xasida gi te toxalon ko bu yàgg ci bayam sëñ Mbàkke burhan bu yàgg la won xasida ci bindu bopam am jox na ma ko jox na ma mbindum ci xasida gi bu yàgg te mi ngi ko toxale ci ci bayam kon loli yit te te te bo demé ci xasida gi lépp nusxa bi ma jëlee Njaasaan ak nusxa bi ma jëlee sëñ Mbàkke يونيو مولن وتلة نياري بيت لين لا نقص دي خص بقول لا نياري بيت مولن وتلة بقى توبو أمنا ين أي بن بن بن على بات لك لك يندو يندو با واي قص دي عند كي سرين بيد بيسين بيشيل إند سرين بيجي بابو مو كده في مو كده في مو كده في كيف قص دي ده ما يشيء واخ عام ثلاثمائة وعشر من بعد ألف قلت ذا في الجهري lim naan Touba ga ci Guinée it mel na ne sëñ bi moo ko sëñ bu mag bi Sëriñ Touba moo ko dajjil boppam ndax moo wax ci biir xasida ga fi fi fi fi rajabil muazzami al maymuni fi watani Touba bila taxmini kon mbindum mag wax dëgg yàlla ku ku ku sa tànk guddul waroo caa waroo caa addu ba rawatina nag mag moo xam ne dafa bind ab téere fanweeri at fanweeri at ak ni ab yëram yaatoo ku yëroon la ku ku bëri lum liir la waaye loolu lépp ànd ak mu jël benn téere def ci fanweeri at def ci fanweeri at kon ku ciy wax war nga seetaat la ngay wax bu baax a baax a baax a baax a baax kon loolu te tënk la ci wàllu googu Euh, la ci topp yi di nga xam ne waaye ci cee wax mooy naar boobu mu naan <laughs> moo talxiis mi nanul baaxil qadim jàpp naa ne bu gëstu woon bu gëstuwaale histoire naar boobu du wax lam wax ndax naar ba gëstu naa ko bu baax euh, ci ñu limu ci Mauritanie ba sax <laughs> doomam sax jokkoo naa ci doomi naar bi ci boppam doomi Muhammad ibn Sharmadi Hamdi doomam ci boppam jokkoo naa ak moom ndax nit boo xasee xam giir gam mbokk gëstu ca moom dootul jafe te Cheikh Mouhamadul Muntaxa nii moom wax giir xam na naar ba bu baax sax fii yan mboolem ñu nekkoon ko suñ Basiir xam nañ ko bu baax suñ muntaxaa moo ne ma naar ba i lax maa jeg la bokk loolu tax gëstu ba yomb lool i lax maa jeg foo ko wax wax turam hmm, naar ba <laughs> lu yomb la mi dëkkoon euh, ca ca ca ca ca département fu ñuy wax waa naaga ci dëkk bu ñuy wax Madroum ci Mauritanie euh, foofu la naar bi de foofu la dëkkoon waaw bi mu jugee Sénégal bi mu ñëwee bindee suñu Bachir ba ba dellu Mauritanie bi mu ñu ngi doon liggéey ci almaadul Mauritanie lil baxsil almi ca qismul maxtuutaat foofu yi la doon liggéey doon fa def même métier mi mu doon defal suñu Bachir mooy dafa bind copie ñu ko fay. بصح بو يوتيوب بو ديمون بو ديمون رك انترنت بو بيندي المخطوطات في موريتانيا دا أنا ام سي دير مخطوطات يو يو خامني محمد بن شام الله يحفظه مو مو بنت مخطوطات يو خامني دنجنا لا مؤلف بي ديو لا خط بي خط خط نانغام لا خط مغربي ولا نانغام ناسخ بي ديو لا مؤلف بي ديو ناسخ بدي ولا مبالم دفاع يو يو سخلة كي نص بي يبدأ يقول لا رأس دم ففك أي كل كم خطوة تاري يخلي ممنا بوب مولين مولين مولين كبي ده دفو دف دفو لجي كي قسم المخطوطات كي المعاد المجتاني للبحث العلمي كان بجت وقفنا أن تالف الدرا أول بن مؤلف بن مؤلف ممتالف لدولنا أي واي نكون شاعر لأنه أي واي maa ngi doon di ci njëlbeen ne Baye Mout Diop mii ci Nasru Nasru bu Seex Abdul Hakim Baye Mout Diop moom am na naar bi way wayoon ca jamono jamono sëñ bi si way wayoon joxoon ko ba ba Baye amoon ko nee na Baye Mout Diop nee na toogaan nañ lu yàgg bis naar bi ñëw fi di seet sëñ Abdul Hakim Baye Mout Diop nee man maa alaat naar bi mu sottiwaat way yi mu wayoon naar bee ko woyoon ci jamono jooje te bàyyi mu jóoba ko ko aalaat mu sotti ko bàyyi mu jóob jox na ma way yooyu itam te lépp daf ci taqrisan minanul baax qadim mi ngeen man kon euh, <laughs> dafa mel ne mu euh, wax dëgg yàlla war naa leer naññi ne minanul baaxil qadim amul benn loxo bu ci dugal lennam ku dul Cheikh te sax te sax wax dëgg yàlla luñ jëmb naan te fekk bañ koy jëmb naan mool nañ ko ay yoon yoon mool nañ ko ñaar yoon lu gàtt gàtt te mool ya am na ay nusaxi maxtuutaat yu ko jiitu ndax naar bi ñuy wax wax ji wax ji am na beneen nusxa naar bu ko jiitu ndax ki njëkk tab yi ki eh, njëkk ci minanu baaxil xadim naar bi ko bindoon mi ngi tudd Muhammad Al ibnu Mahad kooku moom sax borom xam-xam la xarit suñu Basiru la woon lool suñu Basiru la ko daan jëlilu sax Mauritanie mu ñëw am moom ab diir xaritam la woon kooku moo moo mu bayyan ba bi njëkk am ci ci ci loxol ko naar boobu li moo ko moo ko bind bi bu te booba it <laughs> am naa ci li ma ci am am ma lépp waaye li ma ci am euh, mën na ëpp na téeméeri paas ak fanweer ëpp na cent cent cent cent ëpp na ko li ma ci am kon it ndu <laughs> lu ci bëri mi ngi fi kon nusxa bi daa am nusxa yu ko jiitu <laughs> yoo xam ne ñu ngi fi képp ku ci am dara muqaabala ko incha allah dana am sax lu ma ci dugal loo xam ne ngir ngeen mën a wóorlu rek wóorlul seen bopp ngeen xam ne loolu yi muy wax dara dara lu ci wér amut dara wéru ci waaw kon dal euh, ci tënk euh, dañu ko tënk foofu incha allah euh, di jégalu bu baax nag ñu ngi jégalu bu baax nag di jégaluwaan mbokk bu baax Euh, léeg-léeg euh, ni vocal xaw a soreyante tuuti mu ko jégalu leen ziarewaat baax di ñaan nag euh, ñu ñëw ci rek ndax it ndax it dama wax rek sama baax te minanul baaxil xadim nekkul téere boo xam ne kenn ko moom bàyyi kenn ñëpp la concerné ndax ci yoonu murid la ñëpp ci am accès léeg-léeg sax ma dégg ko moom Moussa Diop ma naan eh, ah suñu Basiiru nag sama maama nag léegi suñu Basiiru bu doonee sama maam bu doon sama maam loolu solo eh, xam-xam la du mbirum ay maama ki sët mbirum xam-xam la kon eh, sama sama sama baax ak sama sama xam rek laa la la laa gaaral <laughs> léegi it nañ ci nañ ci nañ ci commentaire kenn kenn ku ne loo ci xam Hmm? nañ ma ne ma ne sañ commentaire albaab mufta insha allah euh, ñu ngi déglu kon salaamaaleykum wa rahmatullah kon ñu ngi jégalu bu baax a baax a baax a baax tabarakallah al ustaz euh, al baaxis euh, sëñ Abdul Hakim jotaay bi am na solo lool te it na ñàkk lëral nga fi ay tomb yu am am solo yoo xam ne jàpp naa ne tey képp koo xam ne jullu nga waxtaan wi gindi ko nga ci lépp mu aju woon ci إشكاليات يوي نغا خامني الأستاذ الباحث مساجد كوكي تاخو نكو سي صحابي موي بو ياتو توجور نيت نيغا غيس نيت موكاي ييتال دامل تاي غيس نكو سي اندي اي تونت تونت يو امام سولو تونت يو خامني جابنا ني كيب كو خام دي لومو نغا خامني امناي تياسلاي داليكو تيا لي نيو واخني ناو بي مومو تلخيص تي بي ا آه، سي عبد الحكيم تلخيص امو ناوي باتو بلاقصه فوق mi nga jëme woon nag ci kalimatu nasir wane ne moom moo ko bind doon ko doon ko doon ko tarixal waaye jublu ci mukk ne moom moom moo talxis te moo ko bind dameel bokk moom it al ustaaz al baaxeej Moussa Mouhamadou Moussa Diop Koki ci la xasoo googu ci la sukki doon ba wax ne moo tax mi nan am ay njuumte sëñ Abdul Hakim wane ne ay tontu yu bare bari ay buntu yu bare wane ne ñu mi nan amul benn njuumte mboolam li ci nekk lépp Cheikh Mouhamadou Cheikh Mouhamadul Bachir moo ko moo ko bind Cheikh Mouhamadul Bachir radiyallahu anhu moo ko bind naar bi moom da ko doon nasxu loola lépp te lépp loo xam ne bind na ko waa jaaxal ko ci noonu la ko toppee ba indi ña ko fekkoon lépp ci ay saxsiyaat yoo xam ne ñu ngi dund ba tey ni ki noonu mu toppee ba dem Égypte ci ñetti euh, foo yooyu nga xamoon euh, Sadio Koki waxoon na ni su Isaaxa moo ko waxoon ne lii moom rek moo des ci Minanul Baaxi loolu la tax ñu koy tudd dañu gis ñaar moom moo koy tudd moo ñu koy tuddee noonu moo des ci Minan al ustaas al baaxis Cheikh Abdoul Hakim wane na ne loolu xëy na ndax noonu ndax cosaanu Minanul Baaxil Xadiim fooy bi nga xamee ne suñu bés bi daanaka bind fooy bu mag a mag la fooy boo xam daanaka bind ya cay nekkat dana jege ñeent fukki bind te fooy yooyu ñu wane woon foofu yu muy wax li sit foo yu ndaw yi la kon loolu dafay wane ne kon ne loolu mu gis ñetti foo yooyee bokkul ci Minanul Baaqil Qadiim ndax amul lenn sax lu koy firnde ndax ñoom cosaan ñi ci am foo yu mag mag mag la nee na toppee di ba euh, loolu mu wax ci Tuubaa googu nekk Ginne ak ya ci aj yëpp euh, loolu lépp jëmoon ci wane ne mi dafa am ay njumte loolu lépp mu raddu ko teg ci xam-xam waaye xam-xam bu ànd ak yëpp ay teggin kon dafa mel débat ubbiku na iskalaat euh, yooyu nga xam ne albarais Moussa Diop kooki won na ko dafa mel ne andi nañ ko ci ay tontu euh, tontu yooyu nag di ubbaat beneen bunt mooy lépp lu am solo rek li wane ne di wane euh, yitte téere bi ak ahamiya bi mu am ak nekk gi mu nekk delluwaay ci yoon mooy nga xam ne naan kenn mënut a waxtaanee ci yoonu mooy ci delloo ci ndax ku ko bind dafa jaxasoo sëñ bi dund ak moom lu yàgg yàgg diir bi nga xamee ne mbokk mi wane na ne am na sëñ Basiru taalif téere bi mu toll ci fanweeri at dafa wane ne kon sonn na ci son na ci sonn na ci lool kon dafay wane ne it boole maalumaat yam ci def maalumaat la yoo xam ne maanaam bàyyi na ko xel bu baax a baax maalumaat la yoo xam ne bàyyi na ko xel bu baax a baax baax tey sonn na ca ca gëstu ci ci gëstu ko kon dafay mel ne dajji ko noonu nag du nekk mbir mu yomb kon mbokk yi loolu moo nekkoon seen jotaay bi nga xamee ne ñu ngi doon ànd ak euh, al ustaas al baaxis Abdul Hakim di ko ñaanal yàlla defal ko tawfeex